ak kàddu ñaan ak kàddu yi seede na liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy sant mbooloo mi te muy aw ci moom di dem ci mbooloo mi nee na mu ngi lay seedeel pasteefu mbooloo mi nga xam ne ñoo jaayante woon ak sa wajur jaayante ak sa maam ya Sëriñ si Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma jaayanteeg yow Cheikh Mouhamadul Moustapha Mohamed nekkoon ci àll ba di sàkku ngërëm ba suñu borom baaxe leen ñu del siwaat ci kër yi amaat geneen der boo xam ne sa way juróo moo leen ko laxasaay ginnaaw bi mu leen ñaanalee ngir liggéey bii nga xam ne moom la sa maam ja Cheikh Mouhamadul Moustapha di liggéeyal Serigne Touba ci andi gi nga xam ne ci la ci bis bii joxoon ñu ndigal saa bu bis bi dikkee diirum ñetti fan ñuy dajee fii ci tokkoor bu di toppatoo ay xéewal di ko yóbbul sëñ Modou Moustapha ci këram bi ci Daaru Xudoos sëñ Baara nee na loolu ñun dong yëpp maase nañ di si sant sëñ Mbacke Mouhamed te di ko ñaanal suñu borom yokk ay leeram ndax man na ne defal ma ñu lu jom nit nag bu fekkee day ñaan bu set muy ñaan su demee ba gis ne yokk am na na xamal ab sangam na ko yokku am na sëriñ bi sëriñ Baara nee na mbooloo seen xol set na seen yaakaar doyul ko la xam na ne mën nañoo wax ne defal nañ leen jox ndax lii kat ba muy tàgguli di ay dongo yoo xam ne su fekkee dañoo bëgg a xam kañ la sosu ak lan mooy ak juddoom man na ne wàccu sa maam ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ñu amoon ndigal ci moom ci bu waxtu bi dikkatee ñu dajee fa tayif donga yi ngir fàttaliku jëmm jooj yi ak fu mën a awi rek loolu mooy cosaan la te jàpp naa ne fa mu sosoo woon ak fii mu toll nii wax dëgg yàlla kuy sant war ngaa sant ca xam ne yokkute am na kon loolu suñu baara yoon moom la koy séedee bu ndax Pastef day wax dëgg yàlla xam na ne mbooloo mépp Pastef rek lañuy ñuy doxee waaye du ak man waaye nag mel na ne ak man la ndax li tax mu mel ne ak man la ndigal ñëwagu fi mukk ba booy ca yàlla duñ fi ñëw mukk ba booy kon sëriñ Baara nee na ndigal loolu it liy tax ba du booy muy gopp bu dëgër ëllër bu ñaw bu man a bay sëriñ Baara nee na ma ngi lay ñaan nga dolli ñoo ñaanal dolli la ñuy wax ndax xam na ne ñaan xéewal ñu am na kon nee na mu ngi lay ñaan nga dolli ñoo ñaanal bopp bi na dëgër ëllëg bi na ñaw waaye nag na nga ñu dimbale xetti nañu ba muy bay ci toolu sëriñ bi sëriñ Baara nee na ginnaaw bu loolu jàllee mbooloo lépp ànd na nag di ñaanal Cheikh Moustapha ndax ñun de xam nañ ne fépp fu ñu mën a dem ci adduna mën nañ faa tudd aw turam man nañ ne mooy suñu kilifa te bu boobaa si bi la ñuy def su amee kay luy xew xanaa moom kay mooy dégg ci ab taalibeem bu ñàkk solo tarxis jàpp ko ñu ne moo ko dem moom mu sëgg waaye moom de kenn du ko yaakaar tudd ko ci lislaam baa nga tudd ko ci liggéeyub sëñ Tuubaa bii bañ xoolaat na bët boo xam ne danaa ah kii de ndeke barab sàngal la bokk kon na nga xam ne googu wet sant nañ ko ci baax gërëm nañ ko ci baax sagal nañu ci baax ndox lu ñu ñàkk ñàkk solo ak lu suñu mbubb mi woyof woyof kenn ku nekk ci ñun bu ñu tasaaroo ba nga dellu fa nga nekk yaa ab ab dëkk la wala koñ fa nga dëkk suñu leef la yabee mbaa ñu xeeb la ci saw doxin la waaye danañ la fekk foo xam ne nii danga mën a waat ne ndimbalul sëñ bi akub liggéeyam doomu moo tax mu teg la te lii may wax man dama koy dund ca xam naa ñu bari dund nañu su ma demee man koñ ba ma dëkk nga xam ne ci biir Tuubaa la dëkk doomu moo ma boole ak ñoom mboolem ña nga xam ne nii samay maas lan bàyyi leen may wax mboolem ña nga xam ne samay baay leen wala samay maam moroom la ñu may def lépp lu ñuy laaj lu jëm ci sëriñ bi dañuy jàpp ne su ma ko fekkiwul loolu du sotti te du man doon maam ñëpp laa la wax nag ku ko ci natt sa bopp rek jël ko loolu nag du xam-xam sëriñ bi rek kon loolu nañ xam bu baax li ñu sëriñ bi defal ndax yëngu dara bu njëkkoon jàpp nañ ne. barab boobee ku fi jógee boo dikkee da ngaa war a yées dañ laa war a dimbaloo waaye jàpp naa ne kon sëriñ bi defal nañu loo xam ne jomb nañu ndax mépp mbooloo moo tàbbi danoon la bàyyi xel bu baax rawatina nag ñu xam ne ci Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha moom la ñu ci moom la jógee bépp dëkk boo nekk tam xam ne ci moom nga jógee bu waxtu julli jotee daañu la ca kanam lépp loo xam ne dañu koy def ngir liggéeyal sëriñ Touba. soo ca desee ci ginnaaw ci yow la waaye ñoom danañ fam seen yaakaar yëpp def fi yow ba keroog ngeen ne ñu ñuy gis lu dindi loolu kon kun jàppoon ne doo tekk dara soo jógee ci barab boobee suñu demee ba nga dem ba dellu si ca kër ga nga jóge lu fa yëngu ñu jàpp ne boo dikku dara du sotti daraa ngi noonu gaañu kon noonu na nga xam na nga xamal sëriñ bi ne ko ñoo koy dellu njukkal njukkal ni mooy di ko ñaanal suñ borom gën ko te yàggal gën ko wéral sëñ Baara nee na ni mu ngi lay xamal ne liggéey ji moom ne suñ cantan mu ngi koy dale ci suñu suñu magi taalibe yi wala suñu bàyyi taalibe yi nga xam ne liggéey bi ci seen loxo lañ ko man nañ ne ñun bi ñu ñëw fekk nañ ñoom di liggéey ba pare liggéey bii ñoo ko yoroon ba mu agsi ci suñuy loxo tey te ñun fu ànd ñu nekk ci biir suñu demee ba liggéey bi ànd ci ànd bii ginnaaw yàlla ñoom ñoo ñu koy lëggéey nañ ci lu bare bare ndax loolu suñu borom moo koy def ci doomu aadama bari na jëmm yoo xam ne mbooloo moo leen seen amatul laaj da ngay wax rek kon sëñ Baara nee na loolu it ngi la koy seedeel ci magi taalibe yii nga xam ne mënoon nañoo nopp lu bàyyee ñu lëggéey bi te fii lañ wax ak yow de suñu yàlla dogalee lëggéey bii ñuy def ak bañ war koo yóbbu bay ci tey benn oto bu fi nekkoon dañ ñu koy jox ñoom toog te mën nañoo jur suñu bàyyee loolu it lu mat a seede la nee na mu ñu la koy seedeel te ñaan la ñaanal leen suñu borom doon leen a jàppale doon leen a kàttanal ba yéen a ñi nga xam ne am nañ ko ci mën ngeen sëriñ bi suñu boroon defal leen ñu àggal ko ba mu àgg ci rek mbooloo mi day mënuñu sëriñ bi jumtukaay yaa ngi bi toog di déggoo rek li ñu fas yéenee Seex ak sëriñ bi daal di déglu ndigalam te fas yéene saa buñ ko déggee nekk ca yow. wasalaamu aleykum jërë ngeen bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk taal bi fi teew yëpp sëñ Baalaloo moo ngi leen jot li nuyoo ko tedd gi ak Cheikh Mouhamadou Moustapha mu yebal nu si jëmmal ak jot li leen kàddu yi cant ak yeewee ko delluwaat ca yitte loolu moo tax moo wax ne nan ak si ngir lool yi Cheikh Mouhamadou Bassir ngii ñu ñaan bu baax suñu borom da koy sàkku nag ci yéen loolu laay jiital ci wax ci te wax daan ko démb ci barab bii nu jóge nun day nattab lu wun xol yi nu jàkkaarloo xol yi nu jàkkaarloo luy naa ci ñun Moussa dana ko def ma bëgg rek waaye kenn ku nekk sa yitte bu fekkoon ne da ngaa jox woon sa borom ma di la wax ne tey may naa leen ci jenn ma jox la ñaan naa leen tànn leen Cheikh nekk tànn a faj waaye yaa ci jiital. loolu seen Moustapha dafa yàgg tëral la man nag ci duubal bu ngeen ko defee sàmmoon dama foofu sëñ Bara sëñ bi nee na kàddu yu la nu wax am na kàddu yu ma wax yoo xam ne bëkki biig ma ko wax bëkki mu jëm ci mbooloo yëpp rawatina yéen ñii mooy seeree leen ne ab xorom sedd la te wallaahi baat boobu ci doyal lu ci yemul mu doon sëkk te lii ma la wax noonu la ma ko waxee ma leen seetal sama xol seet na buy yéen nag da ngeen am tawféex ci kaw tawféex ndax yaari mbir moo am benn bi mooy la ñuy wax am li ci des mooy la ñuy wax xaas am mooy ñu ñëpp bokk kenn ku nekk def ci secteur yóbbaale ko xaas nag mooy ki seetee ci biir ñooñee dafa koy yëfi bopp te bii léegi loo xam ne ko seen histoire wallahi lasim am leen xaar ci Cheikh Moustapha da a bokk ci xaar bi ci lim digle ñëpp bokk mu seppiwaat leen doxaat leen ak yëfi boppam yoo xam ne yéen dong ko ca doy loolu laa bëgg ngeen xam ko am na loo xam ne kenn doyu ko ci ku dul yéen ñi te loolu firnde jàng yi ahibaalu xadim di ku ko ne aslantu naf si nee na may si bu Sëñ Tuubaa digal naa la la wax wax ko boppam génnaat ko mbooloo waxalaat ko boppam ngeen doon ci ab banqaas waaye ca biir loolee nag mu seppiwaat leen sant leen liggéey boo xam du ko sant kenn loolu mooy xaas yi ma leen loolu mooy ak yeneen ak yeneen nag ma gën a xam lool kon ci biir ngeen am ci ci Cheikh Moustapha ba tax na kon fedd li waat na it nag te lu ma yéem la muy kaddu yoo xam ne dafa àgg sax ci leer Moustapha man liggéey bi te baaraka la taxawaay bi de am na sol waaye man de gis naa ne jigéen ñi soxna yi seen pas-pas yéem na loolu moo ko waral boppam ba tax na na nga may na samay cant ci ñoom ndax néewaana mbooloo mu toog fii ci man wala jëwriñ yi ñëw ci man te waxuma pas-pasu soxna yi ngir ñu ñaanal leen kon yéen soxna yi yéen nga war xam na leen ko delloo daal na nga xam si am soirée na lay seeral loolu baax a baax kon nee na léegi bii nag mi ngi feddaliwaat ndigal yi bis naka tey kenn ku nekk sax laxasaay na nga ko feddilewaat te tàmbaliwaat te nee na liggéey yaa ngi suñu kanam lu ko fas yéene ànd ak moom kon nee na mi ngi mi ngi feddiwaat liggéey di digal ñëpp nag ndigal lool yi lu ci waay defoon gis sa loolu te yéen a ko waaye lu ci waay gën a yokk gën cee dox mu nee moo ko ci gën ndax la mu ko fi waxoon daawaat jege rek nee bu ñëpp defoon ne moo am li bëgg bu ñëpp defoon ne yéen jàmm ma ma am jàmm sama loxo ñëpp defoon yéen ma am li ngeen bëgg kon nag da ngeen di jàpp ni ñëpp ci yéen lañu war a roy da ngeen di jàpp ni yéen i ilimaani liggéey yéen i ilimaani liggéey Cheikh Moustapha bi kon nee sant na leen ci loolu gërëm na leen ci bu baax a baax daf maa wax ci fan yii nee lu kiimaane fi barab buñ nekk mu ne ma Moustapha ma ne ko mag mu ne ma suñ borom bind jaam ñu lu li bu baax fekkonte ne buy bind ab jaam daf koy woo di ko laaj ba xam lu mu bëgg mu def kon lu bëgg jaam ba doon ko kon de Moussa maa ngi lay suñu borom laajee man man mii lu ma bëgg a doon doonu dong ko nee na bu doon laaj dama koy max ne ko def ma dong man ànd ak doon nit ci liggéey kon nee moom loolu lay tànnal boppam waaye mu daal ci teg nag waaye nag ah, daa yàlla jël bii mu ma jox mu jox ma ko waaye mu saama rek ma bàyyi mu ne man li wér tuuti ba ma ko joxee laa ma joxaat seen tubaab bi maanaam góor góor mooy dara yàlla ci ki xam ne am na lu kenn nangu am na lu kenn nangu beneen ba des itam nee na gis na ne nit ñaa ngi ñëw di indi ay yitte wala ñu di ko na na seen xel dal bu mu daal di teg ne am na seere ñu fekke loola lépp loo xam ne ab dongo. wala taalibe amati na ko yitte bul sonn sax ci jokk jolaate bi seetal jëwriñu mbooloo ñu wala kër gën a jege nga diis ko ko bu boobaa dana saafaraw loolu it nii la ko waxee loolu sosaloo ko billaahi asib nee na yitte ju ngeen amati seet di ko yëgu na ko sëñ baara yëg rek wala kenn jëriñ rek wala koo gën a jege ci donge yi bul ko xeeb dama ne ko nangam ak nangam bu boobaa kooku nopp mu yore dégg waaye sëriñ bi mooy dégg li muy wax waaye bi dana ko ñaanal maa ko soog ndax day liggéeyal sëriñ Cheikh Bassirou mii ak Cheikh Mamadou Fadal ak Cheikh Mamadou Lamine ak seen i ñañ bokkal sëñ Mouhamed Mbacke bàyyi faale sëriñ bi lañ yoo xam ne kat sëriñ bi dong lañ fekk kon nag maa ngi sakku man mii ngeen ñaanal ko li mu bëgg a liggéeyal Cheikh Moussa loolu laay wax man li mu bëgg a liggéeyal Cheikh Moussa yal na ko am nañu ko bëgg. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñun ñëpp macha allah. amiin.